tey jii ñu fas yéene waxtaane ay ponk ponk yi bi ci jiitu bokk na ci taskatu xabaar yu ñu bàyyi ñu koy rafetlu Pape njaay liberté provisoire sëñ Saliou Guèye mais aussi ñu bañ a fàtte Mati Sarr parce que damay gis si mbootaay taskatu xabaar yi nanguwul wax ci moom pourtant dañ ko jàpp ñu ne amul carte presse mais liggéey taskatu xabaar loonu def te am na ci rédaction yu mu jot liggéey ci réew mi naam ci Facebook bi ak réseaux sociaux yi la gënoon a active mais kooku tam bu nekkee ci loxoy yoon ni ni taxawoo Pape Ndiaye taxawoo ko Walfadjri pour mu tijji taxawoo ko sëñ Saliou Guèye noonu la nga ko war a taxawoo mais aussi taxawoo ko Cheikh Bara Ndiaye pour euh, plusieurs raisons parce que benn ci njaboot gi la bokk te bari na ci ñoo xam ne ci njaboot gi buñ mësaan a am jafe-jafe xat-xat ba ci Serigne Saliou Gueye mosul wax te tuddul Serigne Saliou Gueye moom Cheikh Bara Ndiaye musul wax te tuddul Pape Ndiaye pour mu génn tey jii xeexu Walfadjri bi bu ko fekke woon day taxaw ndaxte amul manifestation bu mu mës a ci sanction bu ñu teg journaliste wala ñu tes ko ab euh, maison de presse te jugul wax ci ba ci Sen TV bi ñu ko fi tëjee Cheikh Bara da cee taxaw kon ci njaboot gi la bokk doon ci joué bu am solo mais aussi doon ab porteur de voix dossier am nag duñ ci dikk parce que bu nekkee ci instruction loxo juge li ñuy def rek mooy ñaan ñu bàyyi ko ak nun ko mënee bàyyi nañ ko bàyyi mu ñibbis ca njabootam benn pour wér gi yaramam benn kilifa la beneen bi ci topp mooy am na garanti boo xam ne mooy wane ni heure bu nga ko soxlaa mi ngi ci réew mi buñ sañoon nag ñu seetal ko ba mu set wicc ndaxte ñun nag ki ñu xam ku ñu xamul mënuñoo wax lu ñu gëm ci moom ndaxte ñun ñoo la ko gën a xam man bu ma la gënee xam Cheikh baara yow nga ñëw di ma wax ci Cheikh baara loo xam ne xaw ma ko woon man li ma xam ci Cheikh Bara rek laay gëm ba gis leneen loolu daf ñuy rafet njor ci moom ginnaaw liberté provisoire bi ñu dugal ñu jàpp ni fekki fan mën na génn kon ni ko Pam Ndiaye defee ak sëñ Saliou ñaanal ñëpp ñu génn léegi nag mbiri Cheikh baara lu tax ñu ci indi gindi ak leeral mooy daa am ñu ci dégg mooy li jëm ci mooy financer terrorisme ak xale yi doon yàq lii ak le mais daf ci am benn boo xam ne man mënuma ko gëm mooy ñu ne Touba la fa xewoon ak lan fa jote yàq Cheikh Bara Touba la dëkk buñ doon dàq nit ñi Ndakaar ñu ñibbi Touba lay fanaani tey jii bu ko safaan daloon Touba lan koy denc yàlla na yéex ay waajuram fa la ñu ne maanaam moom doomu Touba la tekki bokk ci askanu Touba ci daaru Assane Ndiaye doon kilifa doon cheikh màggee ci keppaaru sëñ Sidi Mokhtar Mbacke di xalif général des murit di doom ci soxna May Mbacke bu sëñ Sidi Mokhtar Mbacke kon kooku du ko tuuti ca tubaa kon taxawu ko day am solo waaye bu ñu ay kàddu ñu ne la xewoon ca Touba xale yi doon manifester Cheikh Baara. loxoom da cee laal loolu mun ñu ko gëm ñu dem ba tudd ab këru ministre ministre boobu ñuy tudd këram te mu tudd sant Ndiaye mën naa waat fi mu toog ni ku miinanteeg Cheikh Baara ku xam Cheikh Baara la ndax seqoon nañ mbiri ñaan ak jàppalante te bokk na ci ñi seex Baara gën a miin ci nguur gi bi Cheikh Baara di jàmpanteeg moom nekkul ministre nekkul dara moom ak beneen ministre boo xam ne ñu ngi ci nguur gi sant ba Cheikh Baara jëflanteeg ñoom ci wàllu ñaan parce que sëriñ la parce que dama ko daan wax. dama ko daan wax bu dee ci wàllu politique sañ nga far fu la neex mais ab sëriñ bu dee nit day ñëw di ñaanlu ci yow bul xool APR la bokk wala Pastef ndax da ngay liggéey liggéey xamul loolu beneen bi ci topp mooy ab sëriñ bu dee nit day ñëw di faju ci yow ab docteur warul xàmmee fii kii fu mu farak fu farul moo tax bu weesoo politique bi ak taxawaay bi mu doon am ci réew mi bari na xarit ci opposition mais bari na xarit ci pouvoir te li mu ci xam bari na kon bu nee ñenn ci pouvoir bi moom dafa bokkoon ci ñi leen doon yàqal buñ ko waxee woon ndakaaru sax sa xel ñaaw mais biir Touba gëm naa ni lay yàqu mënul jóge ci loxo Cheikh baara parce que nag bari na ki ñoo xam ne loolu la ñuy gëmal kilifa yi ca Touba xam ne nee naan kilifa yi dem nañ wax ak ñoom looloo tax bi waawal fajri demee Moustapha Diop wax sëñ bi na ko xamewuma ko noonu kon lan lañ ko xamoo xamooloon balaa loolu looloo tax loolu ñuy wax ci Cheikh Bara ca Touba amul wala bu amee dina ma jaaxal ndax man mii mënuma ko gëm beneen bi ci topp mooy li jëm ci taxawaay bi mu am parce que ñu bari ca tubaa dama lay jox benn exemple dafa am ñoo xam ne dañuy politique ca Touba bokk ci nguur gi jàpp ni ñoom bu mënul am dara ca tubaa Cheikh Bara moo tax tele bi muy toog ak taxawaay bi mu am am na ñu gëm loolu te ñoom ay autorité lañ nekk ci nguur gi doon ay kilifa gëm ni bu mënul gañe Touba dara rek te te nguur yàgg na kaa ñàkk nguur Macky Sall kañ la gañe Touba avant Cheikh Bara di toog di chronique ci ñaari at la yam mars 2021 la Cheikh Bara commencé di toog fii di wax ci politique mais ñoom yàgg nañ ñàkk élection Touba te boobu Cheikh Baara waxul kon tey jii seen ñàkk am dara Touba bu ñu ko bëggee jiñ Cheikh Baara ba tax tey jii ñu koy woo ci yoo xam ne kenn xamul lu mu doon loolu ñun ñi mënuñu ko gëm te ëpp ñu ñu xel kon Touba danoo war a taxawu Cheikh Baara njaay ñaan mu génn delluwaat seen njabootam ndaxte heure bu mësaan na nuyoo nuyoo ba li ëpp ci nuyoo bi Touba la koy jagleel kon da ko war a taxawu jàppale ko te lan leen di gëmal naan Cheikh Baara am na benn wax bu ma dégg tamit dama ko dégg. mooy mitingu Mbàkke bi magi Pastef yi bi ñu demee Touba kër Cheikh Bara Ndiaye lan daloon mais kër Cheikh Bara Ndiaye boo fa demee màggal Daaru Assane wala màggal tubaa mais ku ne fay dal ñu ne meeting ba fa amoon coow la fa am mooy manifestation bi nu daggee woon wal fajri ñu ne dalal gi mu leen dalal moo taxoon Touba yëngu parce que moom moo leen dalal ci këram ay magi Pastef kon kay bu dee magi Pastef ñu yëngal tubaa nañ jam jàpp magi Pastef yi ay magi Pastef man yi ma xam paa yoo xam ne ku ci ne mu ngi yor yat xanaa nag bu ñu jógee Dakaaru dem ci ab bërëb fekk fa ku mel ni Cheikh Bara Ndiaye ak ku xam Cheikh Bara xam ne këram gi sax nekk ci Tëngéej ku ne la fay dalal mbana la fay teg nit ñi di ko dundee nit ñi taxaw ñu naan moo leen dalaloon Touba meeting ba amoon Touba ak magi Pastef yi mais ku woo ay kilifa ba ñëw kay jox leen ñu lekk ñu naan boo amee sa xaas jox leen paas man mi sax bu ma dëkkoon Touba bu ay kilifa ñëwee ma dalal leen loolu mooy baax ca mooy bernde bernde mooy mën gan mooy fonk nit ak fu mën a jugee loolu baax la ca Touba te Cheikh Bara nitu Touba la kon yooyu ñu indi teg ko bëgg di ko chargé yooyu nañ ci bàyyi xel te xam ne wax taxul biir fees des fois il faut ñu xa xam ne ay boroomi xel lañuy waxal xam ne fu lañu jëm kon yooyu il faut tamit ñu ciy bàyyi xel mais aussi tamit bañ a politiquer lépp parce que bu dee dafa wax. Cheikh Bara mars 2021 ba léegi mu ngi wax kon Cheikh Bara bu doon ci wax la nga ko war a jàppee jàppee nañ ko bu yàgg loolu tax ñuy ñaan ñu bàyyi ko mu ñibbi dellu siwaat ci njabootam parce que aussi daf ci am loo xam ne kenn mën a parce que li xew ci fan yi weesu ci weeru juin mais boo ko bëggee jël wékk ko ci benn Cheikh Bara Ndiaye ba tax ay kilifa jug bëgg ko jaxaseeg waa tubaa loolu mënul ne loolu li xew ci réew mi dafa dépassé Cheikh Bara Ndiaye dafa dépassé Sonko tey jii mi ngi nii ñu internationalisé yóbbu ko bitim réew Cheikh Bara musul dama ko daan tooñ naan ko Cheikh Bara yow manifestation bu ñu autorisé rek ngay dem mais bu ñu autorisé doo ca dem mu ne man manifestation bu ñu teree duma ci dem ban manifestation lan mës a ne bu kenn autorisé wuñ ko ñu di soo Cheikh Bara Ndiaye ca Bara Ndiaye danoo mës a gis ab taalibeem taalibeem laa la bu nekk ci dëkk bi ñu ne nit def na mboosoor ñu ne def katu ñaawteef la ñu ne taalibe Cheikh Bara Ndiaye la tey jii ñi ngi nii téew ko li lay wan ni ay taalibeem danoo yaru ñi ngi nii téew ko dégg ngeen taalibe Cheikh Bara bu saage ci internet bi wala mu génn organiser manifestation wala dara wala mu def lii ku mën a yëkkati xaalis di financer ay nit kookay xanaa boo nekkee ci loxo yoon seen nit ñooñu ci biti dinañ jéem a sax yëngal jéem a def dara mais lépp ñu ngi koy def ci discipline butéel la mu def la saañ bay xeeñ mooy wane ni kilifa la mais yilifa na njabootam mun na am bu leen ne woon jug leen ñu jug mais dal gi ñu wane mooy wane personnalité Cheikh Bara ci ni du nitu fitna du nitu fitna du nit koo xam ne day yee ay dialogue bi ñuy woote Cheikh Bara Pastef ànduñu ci keneen àndu ci mais fi la toog di ko défendre ak leneen ak leneen kon des fois il faut que ñu sérieux tey jii bu nee day financé ban ban lii leen gis trace tras bi wane ni. kii dafa financé li wala li ban trace ci téléphone am ak kan moo jug wax loolu nanu indil nit ku wax loolu bu boobaa nag ñu xam ne Cheikh Bara moo sikk mais jël ay wax rek wax waxi aji saara ngi ñaari at ñiy jiñ Sonko ñaari at ñu koy jiñ est-ce que bi ñu ba ca procès lañ ko doon jiñ dëgg la ñaata yoon lañ fi jiñ ay nit Pape Alé Niang fii la dugg kaso bi ñaari gendarme mu faatu fi nga gis ay journal di bind le téléphone de Pape Alé a parlé xam na loolu lu xew la léegi ci réew mi maanaam dalay jàpp jël sa téléphone jël utiliser ay nit ñu naan la téléphone ba wax Pape Alé bi mu génnee la taxaw ne sama téléphone kenn mus ko ibbi sa ba xam lu ci ne ci faatu Fulbert Sambou ak Didier Badji am ñu doon def liaison ak Pape Alé Niang beneen bi ci topp ñu ne am na téléphone sonk yi mu jéggeen lan la ci wax Sonko ak diw sonk ak diw mais xool lan la jur. ba léegi mënuñu indi preuve ci dara manipuler opinion bi jëm leen gëm lu nekkul parce que léegi loolu lañ jël mooy yor sa téléphone moo tax da ut yi yii moom xanaa du wax dara yu ndaw yi yu ndaw yi yàgg yi c'est-à-dire dafa yomb nga téye nit ci bërëb ba pare di créer ay mbir di ko charger lu ne nga wax ko ci koo xam ne wérul dafa war a dem faju ji nañ ko bàyyi mu faju ji ñëw toog ak njabootam loolu mu doonoon loo xam ne dañ koy ñaan duñ ko ñaan kenn ku dul njiitu réew mi le président de la république du Sénégal Cheikh Bara du seen noonu ku bëggul doon maire bëggul doon député bëggul doon sénateur bëggul doon conseiller bëggul doon lu ne lu dul toog ci keppaaram di jàngal ay taalibeem ay dongaam ñëw muy ñaan di defar ay garabam di jaay comme ni ko ñu bari di defee ci loolu la ne léegi nag sañ am gëm-gëm sañ am xalaat sañ na ni ànduma ci lii loolu mu doonoon kàddu yoo xam ne dañ koy yëkkati rek doon ko ibbee waxtaan wi parce que nit aussi boo ko xamee di dégg yenn ci moom dalay xaw a metti loolu tax dafa jekkoon ñu leeral mais aussi di ñaan ñu bàyyi ko liberté provisoire bi mu dugal ni def Pam Ndiaye Sëñ Saliou ñu def ko def ko ñeneen ñu génn dem tabaskee ji seen kër loolu lañ doon ñaan